def naa plus de vingt cinq ans RTS nest pas man jaaruma ci ay bureau ak ay fauteuil pour ñu embaucher ma. RTS ñaata agent de programme ñoo xamante ni jànguñu demuñu école ñu def ñu embaucher leen def leen agent de programme ñu nga fa. ba may dugg RTS Racine Talla la nekkul RTS man de xaw ma ku courtiser xaw ma ku courtiser kuy courtiser ñëwoo ci man ni ma dama lay ab Abdou Diouf sama cousin la yaayam ak sama yaay ñoo bokk. sama yaay di tàntaam yaa may dégg bu baax mhm. euh, may mën a ku sa yaay décédé amul benn kenn ku ñëw jaale si la si sa ay ay chef donc le fait que ñu lay mettre au frigo wala leneen c'est rien ñàkk parent moo gën a metti mettre au frigo n'est-ce pas mhm. voilà mi internet Sénégal tey ñu ngi fii di dalal Hady Aïdara l'une des premières femmes journalistes sportif au Sénégal euh, madame la première question Hady Aïdara rek nañu faral di wax est-ce qu'elle est mariée maintenant waaw euh, soxna soxna Hady Aïdara madame Mbacké madame Mbacké ah, depuis quand ah ça doit faire maintenant deux ans depuis deux ans. deux ans waaw macha allah dañ la gis depuis longtemps feeñatoo ci kon ci écran bi donc kon ñu doon ndax da nga retraité ou bien. Hmm, pas du tout ah retraité wu ma toujours maa ngi toujours RTS euh, maa ngi toujours RTS waaw retraité wu ma la maa ngi fa. yaa ngi toujours à la RTS mais on ne vous voit jamais. waaw xam nga ñun ay ay agent lañu. Mhm. Euh, dañuy dox ci ci ci ndigalu suñu ay suñu ay kilifa. Mhm. yi nga xam ni moom la ñu bokkal mhm. liggéey bi. waaw liñ ñu sant rek ñun loolu la ñuy def. d'accord <laughs> loolu laa la mën a wax. ah d'accord et depuis 2019 dañoo gisoon da nga bokk ci 21 vingt 21 cadres yoo xam ne ni que dañ leen mettroon au frigo par l'actuel directeur Racine Talla est-ce que yaa ngi toujours dans situation. dañu dama bokk ci 21 je pas compris. dañ depuis 2019. Mhm. Racine Talla dafa génne woon une note mettant au frigo 21 cadres. comme mhm. ñoom may Maymouna Ndir ñoom Abdoulaye Fofana Seck ñoom Tidiane Barry. Mhm. yow da nga bokkoon ci liste boobu est-ce que toujours yaa ngi au frigo. ah waa xëy na comme gisu leen ma comme gisatu leen ma te peut xëy na list boobu yéen gis ngeen ko xëy na man sama tour mi ngi woon donc je considère que ni ba ngi ci liste boobu ah d' accord luy sa relation ak Racine ah relation bi ñu bi ñu bi ñu am maanaam amuñu amuñu contact vraiment relation bi ñu am mooy directeur général ak agent rt ah d' relation boobu de dëgg yàlla moom la ñu am. pourquoi feeñatoo trop télé est-ce que da nga am ak moom ay problème ou bien. pas à ma connaissance. Hmm. man man boog personnellement man aw problème ak kenn. ah d'accord bu leen di mettre au frigo euh, yow ak vingt autres agents yooyu joxuñu leen une explication wala. Hmm, pas du tout hmm, pas du tout. dañu jékki-jékki rek mettre leen au frigo. waaw parce que xam nga fii euh, nit nit yi dañuy jël benn benn affaire <laughs> euh, di ko kiyal parce que. kenn ku nekk mhm. même le président de la république mhm. bi mu ñëwee dafa wut ay collaborateurs mhm. am ñu muy àndal considérer que ni ñii mën na liggéey ak ñoom nest pas mm-hmm. donc la vie sa marche comme ça nit ki yow mën nga dem nekk fenn tey ñu jox la dara nga xool ñi nga xam ni peut-être yow yaakaar nga ni ñii mën nañu liggéey ak yow waaw mais du un truc boo xamante ni que man moom dama dama doylu doyloo yàlla parce que xëy na ba may nekk ba may dugg RTS Racine la nekkul RTS def naa plus de vingt cinq ans RTS n'est-ce pas. Mm-hmm. waaw te it liñ ma jox ak chaque fois ma koy def maa ngi koy def. Mm-hmm. di ko def dans les normes waaw bu fekkente bugguma sax en fait waxu Racine la par exemple ma ci ma ci ma ci yàgg parce que. loo xamante ni moom c'est le directeur général de la RTS yàlla moo ko fi teg n'est-ce pas donc su fekkee ne am na ay certains journalistes yu mu considéré que ni mën na liggéey ak ñoom wala ñii la bëgg a liggéeyal mais c'est son droit le plus absolu amul benn amul benn problème franchement mais Khady Aïdara dañ ko xamee woon journaliste reporter sportif. bien sûr te bu ñu toogatee ba gisatuñ ko woon sur le terrain. normalement bu ñu ko mettre au frigo ban rôle la am léegi RTS. ban rôle laa am je suis toujours journaliste. mais dematoo sur le terrain. non mais xam nga journaliste moom looy jàng la am diplôme bi yaa ngi dégg même booy retraité sa sa journaliste diplôme bi nga am diplôme bi du retraité dara xam-xam bi nga yor yàlla defal la ko nga dem jàngi ko indi ko du dañ loolu du ma sa dañ waaw que ma dem sur le terrain wala ma bañ a dem sur le terrain sama xam-xam mu ngi ak man. te la ma mënoon démb moom laa mën ba tey dara dañu si. Ah, d'accord waaw. la <laughs> mettre à l'écart ni waaw xam nga euh, man wax dëgg yàlla wax naa la dama dama dama gëm yàlla doyloo yàlla même bu fekkantee sax benn situation daf lay metti dangay delloo yépp yàlla parce nit ki mënul dox lu dul destin n'est-ce mm. yàlla moo ni woon man vraiment du ma wu ci yenn affaires yi man lu ñëw rek dama naan yàlla moo ni woon telle période telle heure telle date lii ak lii moo ci waroon am c'est vrai que un journaliste qui ne va pas sur le terrain sa femal mal journaliste bu dul dem ci terrain nga dem jàngi ko fay sa ay millions parce que man j'ai fait mes à Paris à l'école supérieure de journalisme j'ai mon master un en journalisme n'est-ce pas waaw donc un journaliste qui ne va pas sur le terrain effectivement ça fait mal mais aussi c'est c'est c'est dans l'ordre normal des choses ou, ou bien dans l'ordre normal de la situation du moment franchement. d'accord il y a aucun problème aucun souci. <laughs> et jéemuñu la moom en personne ou bien ses collaborateurs les plus proches jéemuñu la si jox une explication normale à cette situation. non. <laughs> yow tamit jéemoo ko cherché. non parce que euh, may mën a ku sa yaay décédé amul benn kenn ku ñëw jaale si la si sa ay ay chef donc le fait ñu lay mettre au frigo wala leneen c'est ñàkk parent moo gën a metti mettre au frigo n'est-ce pas. Mm-hmm. c'est ça mais wax dëgg yàlla jàppaluma kenn dara amul ma benn animosité ak kenn. wax dëgg yàlla. Khady Aïdara say diplôme de base tourisme la hôtesse de l'air nga noo atterrir dans le journalisme. waaw journalisme bi ma koy def euh, effectivement euh, nekk naa pas hôtesse de l'air euh, personne d'accueil hôtesse d'accueil booba j'ai fait quelques piges à Air Afrique. léegi un jour j'ai rencontré Ablaye Diaw par hasard ñu waxtaan parce que je devais organiser quelque chose pour mon équipe de basket à Thiès ASC Thiès bi ma ko waxee mu waroon ma aider ci communication bi après il m'a dit tu sais yow tu peux faire la rajo ma ne ko ah mu ne ma waa il faut passer ma voir donc bi ma demee ma gis ko après c'était Gila Thiam qui était là-bas comme directeur général bi ñu defee bi mu ko demandé ni ko pour ma nekk foofu stagiaire sans hésiter Gila a accepté donc ma nekk fa nekk stagiaire ñu di ma jàngal liggéey bi donc man en fait c'est Laye Diaw qui m'a appris le métier waaw ma nekk di ko jàng sur le terrain waaw ay euh, disons 98. 98 waaw en 1998 laa fa nekk euh, comme comme comme élève stagiaire daal parce que booba. dugguma ci benn génnuma ci benn école de journalisme donc laay di ma jàngal ma fekk fa aussi ay grand yoo xamante ni ay ñoom Omar Seck ay ñoom Omar Diouf Fall xam nga ñoom Ñaaña Sidibé Badara Badara Cissé ñoom ñëpp ñu moo encadré mais ki ma jàngal daal mooy Ablaye Diaw mhm. waaw nga bokk ci jigéen ñu njëkk a def journalisme sportif tey mhm. tey loolu qu'est-ce que cela vous fait le fait que nga d'habitude temps yooyu jigéen ñi elles étaient la santé hmm. dans les autres mais hmm. ñu yow ñu gis la femme nga ñëw dugg dans ce milieu parce que la la def waaw parce que man dama dama man man j'étais basketteuse man j'étais j'étais basket j'ai joué au basket même en France avant may dem di jàngi njëkkoon naa dem France mhm. bi ma demee Gian laa nekkoon di jouer foofu en d donc bi ma ñëwee après tu xam nga affaire basket le sport et cetera comme lay Diaw est journaliste sportif donc man ma orienté wu vers ça donc c'était un truc boo xamante ni lu bees la woon j'aimais faire ce ce ce ce le sport donc euh, franchement ça m'a fait beaucoup plaisir j'ai beaucoup de plaisir ci li ma jot a def ci ci ci wàllu sport bi reportage yi contact yi nga am et d'accord nga nekk jigéen dans un milieu dominé par les hommes est-ce que ñoom daañu doon xool dans très mauvais oeil. je sais pas man. duñ daañu la woon bundu xataal daañu la woon. waaw au début au au au début moom c'était pas c'était pas facile même bu fekk même boo demee ci yenn fédération yi. Mhm. ñu yónni la fa en reportage du woon lu yomb. Mhm. waaw parce que ku mel ni par exemple course hippique. man Mansour Sow moo ma fa doon yóbbu moo ma doon wax ni ma comme dangay def le sport dama lay yóbbu comme ça yow ngay def ay reportage ci wàllu fas yi mais ba ma fa demee les les premières réunions yi ma participer euh, paa yi fa nekkoon dañu xaw a réticent waaw parce que c'était la première fois et c'était normal mais après bi ma jëlee un peu de recul par rapport à aux courses ñoom sax ñoo ma doon woo pour may ñëw waaw parce que bon voilà c'était la première fois bon il y avait aussi Aïssatou Laba Touré mais moom dafa bokkoon ci ñoom donc ñoom ñoo ma doon woo pour may mujj gi à la fin pour may ñëw di di di bokk ak ñoom j'ai fait des reportages ci wàllu course épique mhm. j'ai touché à pas mal de de de discipline quand même mhm, de discipline ñu gis ni que sa <coughs> émission sa <coughs> émission panorama des sports Sen Sport ak 100 pour cent délire dañoo amoon un buzz bu phénoménal mais ñu jékki-jékki rek mu ko mu disparaître parce que Khady Aïdara elle a été victime d'un complot ou bien elle a été <laughs> combattue en interne ba ses émissions elles sont toutes des mornées ah pas mornées nag madame mm-hmm. <laughs> non non non parce que Panorama Panorama def nañ ko ay ay ay pratiquement xanaa huit ans euh, seen être seen seen sport moo ci nekk moo ci nekk durée bi gën a gàtt mm-hmm. euh, cent pour cent délire euh, durant tout le tout la durée de euh, comment ça s'appelle de mes cours à l'école supérieure de journalisme dama doon ñëw di ko def bi ma ñibbisee aussi euh, téye naa émission bi ba ba ba deux mille quoi deux mille deux mille dix-sept je crois donc du woon ay émission moo ne que émission bi am buzz euh, kooku sénégalais yi ñoom ñoo koy wax que maintenant. ñu préférer ou ñu décider que l'émission arrêtée ah ça man je suis un agent de la RTS mais l'émission man maa ko créé woon c'était pas une émission de la RTS. d'accord mais bu ñu ko arrêté waxuñu leen ci dara. non non non. tamit yow jéemoo xam li tax ñu arrêté vos émissions sans raison. est-ce que ay xati ay dara day dérange ah waaw bien sûr. <laughs> ah day déranger day parce que ah waaw déranger parce que xëy na caractère bi la waaw et puis aussi man doxuma ci caaxaan daal maanaam doxuma ci caaxaan moo di man ci lu ma nekk rek dama koy dama koy liggéey def ko normal du ma wax lu dul dëgg du ma dugg ci ay bureau di nettali sama liggéey laay ñëw def su ma paree génn naa dem waaw awma peut noonu lañ ma yare aw ma xarit waaw mën naa mas laa sant xëy na aussi loolu ça dérange peut-être xaw ma. Euh, dañoo gis ni que Khady ay dara ses débuts à la RTS on l'accusait que ni elle a sa promotion fulgurante elle l'a due à ses est que que répondez-vous pas compris charme quoi. ñoo xam ay dara donc euh, genre comme tout jigéen dafa passer par la séduction pour mun a am certaines choses à la RTS. Euh, waaw parce que jàngul métier bi te mm. yàgg ko ñoo am yenn promotion yi. yàlla mi ngi ñuy tiim ñu titulariser ko au. yàlla mi ngi ñuy tiim mm-hmm. man j'ai fait vingt cinq ans plus de vingt cinq ans à la RTS yaa ngi nekk femme publique fii Sénégal dangeen ma mës a dégg ci dara lu naka sa dul noonu ah man li may ñaq di ko lekk dama bëgg mu lew ma dama bëgg mu lew ma loolu ngay wax su amoon fii Sénégal dara du fi umpe. et on man su ma neexee yëkkati sama loxo ci kaw. ma nekkuma ci loolu doxuma ci loolu mosuma cee dox li ma def ba nekk journaliste dama koo ñaq dama ko mbapat dama jaar ci escalier def stage RTS yàgg fa nekk ci stage recruté wuñ ma Abdou Diouf sama cousin la yaayam ak sama yaay ñoo bokk sama yaay di tàntaam yaa may dégg bu baax mhm. kumba dem ak njuubatin seen yaay yi ñoo bokk ndey ak baay yaasin gay masaar tamsir gay masaar dama lay wax fu mu jóge Abdou juf resevoir ma booba mi ngi président de la république mu resevoir ma ma dem buroom ma ne ko soxlawuma xaalis soxlawuma dara lu dul nit ki li nga koy jox jën muy lekk tu nii laa li ma ko wax loolu laa lay répété nit ki li nga koy jox jën bis bu nekk muy lekk nga jàngal ma nu ñuy nappe jàngal ma ni muy nappe mooy dama nekk RTS yàgg fa ma bëggoon ñu dimbali ma ñu recruter ma mu ne ma waa baax na dégg naa li nga wax li nga wax ma génn bi ma génnee aide de camp Sall booba Sall moo fa nekk woowaat ma ni ma président nee na dina xool sa situation nu muy demee bi ma demee quelque temps après Gila on m'a appelé ni ma naa defar samay dossier jox Gila Thiam Gila Thiam moo ma embauché dama lay wax li am man jaaruma ci ay bureau ak ay fauteuil pour ñu embauché ma sama embauché noonu la demee te biñ may embauché agent de programme la woon RTS ñaata agent de programme ñoo xamante ni jànguñu demuñu école ñu def ñu embauché leen def leen agent de programme ñu nga fa sama recrutement noonu la demee RTS du temps de Gila Thiam même les équipes nationales. Mhm. nga baal ma. Mhm. li Sénégal yi doon wax rek laa lay rapporter. il paraît que da nga déstabiliser équipe yu bëri aussi bien les équipes de. déstabiliser comment. comme de basket parce que ñu ne beaucoup de joueurs beaucoup de professionnels dañ la doon courtiser. et loolu da ah, doon loolu da doon ay tensions au sein des au sein des équipes ba joueurs yi. may mhm. man de xaw ma ku courtiser xaw ma ku courtiser wul kuy courtiser ñëwoo ci man ni ma dama lay courtiser. ndax professionnel mosuñu la. ma ne des avances. ma ne dans le cadre de votre travail man yu ñàkk fayda yooyu duma nekkuma ci mosuma cee nekk gis nga Sénégal gii. lu ne la ñuy wax man sama baat ca kaw man gis nga lu ñàkk fayda musuma parce que dañoo ne équipe de football bu 2000 bi danga ko perturbé woon moo tax. 2001 nu ma leen ba ma ne ko ñu écarté la attention attention à ce que vous racontez. Mhm. perturbé comment dama mës a dem seen regroupement dama mës a dem seen hôtel dañ ma mës a gis ma ànd ak joueur man musumaa nekk ci lu ñàkk fayda mhm. joueur bu ma mësa a man ak ay journaliste ñoo ko bokk yoruma téléphone joueur man yorewuma téléphone joueur kuy courtisé yaa xam sama baat ci kaw bu fekkante am na ci ñu ma doon courtiser wala ñu ma doon am nañu na ñoom joueurs yi nañ ko wax sequma ak ñoom loolu liggéey lañu seqoon daa may dégg bu baax mm-hmm. parce que Sénégal gii na ngeen na nit yi bàyyi di di wax lu ñu xamul ak di tegal nit ñi ay ay ay neewoon nañu. parce que looy wax day am preuve. yenn équipe perturbée ça veut dire quoi je, je les ai empêchés de parce que ñu ne amoon ay tension entre. mais c'est leur problème mais ça c'est leur problème moi je suis man ça c'est c'est vous qui me l'apprenez comme yow yaa ma ko xamal man yëguma loolu yëguma loolu mësuma koo yëg ah bon. Ah, son c'est là. ah yooyu amoon na quelles sont tes sa relation ak sportif yi ak dirigeant de sport yi ñi nga jot ñi nga jot xam. jàmm amitié xaritoo ñu ci bëri ba nga ni on ay ay xarit lañ ba nga ay xarit lañu. équipe national boobu ngay wax. Mhm. équipe nationale boobu ngay wax. na nga dem nga wër leen nga leen ndax man yor nañu sama numéro ba tey wala ndax xaritoo na xam xaw ma fu ñu xaw ma fu ñuy nooyee. man nekkuma ci lu ñàkk fayda. ak Aliou Cissé seen relation daan daan nga dégg. c'était la capitaine kuy wax ak équipe nationale moom ngay waxal. quelles étaient vos relations amuñu relation lu dul jàmm ak salaam demal nga laaji ko ko demal nga laaji ko ko jàmm ak salaam madame man nekkuma ci lu ñàkk fayda mm-hmm. et puis. ce que vous ce que les gens font ou ce que ce que c'est mm-hmm. très grave mm-hmm. parce que xam nga lu tax mm-hmm. da ngeen di wax loo xam ne dafa yor njaboot ma yor njaboot yor jëkkër mu yor njaboot yor jabar il faut que les gens arrêtent il les gens arrêtent ça c'est pas bien d'accord mënu leen góor ak jigéen bu ngeen gis ñu ñuy wax ngeen ne da koy doxaan wala daf koo bëgg wala ku jigéen ki da koo bëgg ça c'est très grave. et y a sélectionneur national allez vous gardez toujours les relations. non même pas. Mm. quelle relation. relation bi may garder ak les sportif mooy yow comme par exemple relation bi nga garder ak man nii. Mhm. tu besoin de moi. Mhm. nga ñëw def ak yow sa liggéey. Mhm. yaa ngi dégg ku ne dox sa dox. sa toujours été comme ça. da ngeen maa mës a dégg man ñu da yéen da ngeen a mës a dégg Khady Aïdara ci yu ñàkk fayda depuis comme d'années da ngeen koo dégg ñu naan mu nga ak diw ak mu nga ca baar yaag mu nga ca dancing yaag mu nga ca lii mu nga ca laa wala mu ngay farantoog diw ak wala nekk na ak diw il faut que les gens arrêtent ay ay dafa rafet ak ay dafa jekk ak waaw jigéen bu rafetee jekk rek normalement Aliou Cissé da ko war a doxaan wala euh, Kalidou Fadiga wala je ne sais pas wala dugg na fii génn na fële il faut arrêter et puis arrêter d'étiqueter les gens dans des trucs yoo xam ni yu ñàkk fayda la man su ma nekkoon ci naka su dul noonu ñaar fukki at ak juróom ma nekk ko RTS sama tur musta wàcc ngeen dégg ma ci lu bon du yéen a ma wër. Mm-hmm. Mm-hmm. du dañ Facebook ñoo doon wax man fu ma nekk su ma nekkoon ci naka su dul noonu kon du ngeen ma wër kon chaque jour ngeen am samay nouvelle man nekkuma ci loolu xam nga lu may xool sama bàmmeel parce que xam nga lu tax njaaloog ñàkk fayda ak dugg a génn man kenn yarewuma loolu kenn yarewuma loolu man sama loxo ci kaw Sénégal damay dox sama koñ bi damay sol sama carax yu vert yee caraxu douche di dox ci mbedd mi parce que du ma sëgg du ma rus parce que defuma ko fi waxuma ko fi ku dee sa bàmmeel su ma fi nekkoon di farantoog di def yu ñàkk fayde yéen du ngeen ma wër kon yéen a may dégg ci réseaux sociaux yi man ba may dugg ci métier bi ba ma ciy dugg di nekk stagiaire la la ma laay jow waxoon ca laa téye ba nëga ni toog ci liggéey bi boo ci bëggee yàgg liggéey bii ñu nekk boo ci bëggee yàgg nit ñi naw la yu ñàkk fayda ngay génn boo ci nekkee génn ci boo ci nekkul bu ci mës a dugg laay jaw loolu la ma wax te loolu ca laa toog ba nëga ni muy joueur football di basketteur Hmm? di en handballeur di waa course hippique relation yi ma mësa am mooy relation liggéey jàmm ak salaam waaw man nag nekkuma fi di justifier wala di expliquer di di attardé wu parce que su ma ci yàggee sax dafay mel ni sax dafa am leneen maanaam duma ci yàgg li ma la mën a wax mooy loolu gisuñu joueur bu dugg sa fii fii maa ngi fi nekk depuis vingt ans fii ngeen ma fekk ñaar fukki at dugg leen ci koñ bi bu ngeen paree da ngeen di dugg ci kër yi ngeen laaj ndax mës nañ fi gis joueur bu fi dugg si wala dirigeant bu fi dugg si wala góor bu fi dugg si di taxawaalu di tambaambalu di man ma ci loolu est-ce que sax du looloo tax ñu ñu ma nekk au frigo ndax nekkuma ci caaxaan. ah bon non non parce que parce que man ci sa wax laay laay dellu da nga ni. mais ben bien sûr. yaa ma ko gën a xam yow. mais si. <laughs> métier mais métier yëpp que mu nekk musique que mu nekk journalisme que mu nekk lii ak lii ak lii. mais ma ne ma ne may may làmmiñ du lekk moroomam te ñorul yaa ma gën a xam métier bi c'est vrai que da nga ciy doog dugg xam nga li fiy dox métier mais et puis ce n'est même ce n'est ce n'est pas uniquement le journalisme. mais y a la musique y loo gis ci àdduna loo gis ci àdduna nit ki bu koy def bu nangoo lu ñàkk fayda lu ñàkk fayda fekk ko fa man loolu laa la bëgg a wax parce que yow ci sa début da nga ni ma ba ñu ma RTS ba ñu may embauché sama charme moo tax moo tax ma delloo si la wax la li ma la wax moo tax ma di ma delluwaat pour tontuwaat la métier yëpp a am farantoog kalangaatoog ñàkk sa du du journalisme rek du journalisme rek je suis désolée. nga nekk victime de chantage. man man kenn du kenn du ma wax xaw ma chantage xaw ma que ki ñuy chantage mooy. ki def lu muy nëbb. non genre harcèlement mësuñu la harceler muy sportif comme dirigeant comme aussi à la RTS. man de des man mosoo nekk victime d'harcèlement man hmm. may mun a bu ñu dugg ci hmm. ay kaa bu ñu dugg ci kaa li ma la mën a wax moo di ay cas cela veut leeral ñu ko déedéet parce que da nga gëj a génn sénégalais bëgg xam ci li nekk <laughs> te tamit sa may mhm. xoolal mhm. bi yàgg naa ci mhm. li ngay def nii xam naa ko li ngay def xam naa ko te dama koo jàngi France ñëw gis nga pour pousser ma man ma wax lu ma bëgg ta wax mënut a nekk mais li ma la mën a assurer moo di euh, muy dirigeant ci wàllu sport bi lañ nekk waxaguma waxu RTS. ci mm-hmm. ci wàllu liggéey bi ma doon def. Mm-hmm. muy sama métier muy dirigeant muy joueur muy public musu nit musuma ci def chantage parce que xam nga lu tax musumaa def lu tax nit. di yor sama dara wala di gis ma di gis lu ñaaw wala dara ba nga may chanteloo chantage man sama lépp macha allah sama lépp a leer ci liggéey bi yaa ngi dégg affaire RTS munoo ma cee wax loolu lu ma xamul. mais boo ma waxee am na ay kaa noo dama ne bu ma dugal ci cas maanaam. Mhm. bu ma dugal ci cas mooy bu ma wax loo xam ne mhm. man. même su fekkee ni loolu am na xëy na man yëguma ko yaa ngi dégg parce que yow mën nga ànd ak Malick mii ah, xëy na Malick am cofeel ci yow waxu la ko maanaam di def mi Malick mi ngi jël ay photo mais mën na am cofeel ci yow yow lijjantiwoo ko xëy na yaa nga ca leneen moom pour mu attirer yow euh, sa attention ci ci moom xëy na mu lay defal photo yu bon xam nga loolu mën na nekk mais man ci kaawu RTS euh, may je te le dis et je xaw ma yëguma maa ngi toog di xaar. d'accord da wax léegi ni que. Hmm. milieu bi dafa am ay réalités yu ci am. donc da koy confirmer est-ce que les journalistes yow mi en tant que femme. nekkoon hmm. reporter sportif. Hmm. est-ce que yeneen jigéen journaliste yu mel ni yow comme comme mës nañ la wax ni que vivre nañ ay ay choses yoo xam ne ni que de la part des sportifs ou des dirigeants est-ce que la pratique de votre métier a vous a été facile. ah mais benn liggéey yombul benn liggéey yombul liggéey moom benn yombul <laughs> waaw. loolu moom ku ko dund aussi xëy na doo ko wax ci place publique bi parce que boo ko dundee c'est parce que yaa ko bëgg a dund parce que yow force bi nga am tey yor sa micro yor say caméra di dem nga dem ci un homme di ko di ko di ko in di di ko interviewé su fekkee ni que yow moom pour pour nga jël ko dafa am charte yu mu lay tegal booba yow yaa ngi affaiblir sa liggéey ba yow ci yow liggéey bi nga nekk yow gëmmuloo ko man mësumaa nangu loolu man mësumaa nangu loolu man fii un ministre de la république du temps de Diouf am nañ fi ay problème yoo xamante ni heure bu ma defee émission ñu envoyé son directeur de cabinet RTS ñu visionné parce que nee na dama dama ko dama dama li may wax moom laa koy wax dama koy xas ah bon waaw. daf la mos a def ay proposition yu indécente non du proposition inde ta ta tapacom du proposition inde dama la bëgg a wax ni la man sama liggéey mhm. kenn mosuma cee chantagne ni ma ko sentire laa koy defee mhm. te li ma gëm te muy dëgg moom laa doon toog ci antenne télévision bi di ko fa wax mhm. moom mu yaakaar ni man la may wax moom lay gaaral yaa ngi dégg loolu am na fi ba ñu may wax droit de réponse moom directeur de cabinet ñëw toog di visionner man émission bu ma def waaw loolu am na fi dama la loolu pour wax la ni la man ay dara man ci liggéey bi ma doon def kenn mësuma chantage mësuma farantoo ak ministre ci sama liggéey mësuma farantoo ak xawma euh, sportif mësuma farantoo ak spectateur nekkuma ci loolu loolu nekkuma ci. Euh, ay Aïda def nga plus wax nga ko léegi def nga plus de vingt cinq ans de métier. Mhm. Euh, ban événement sportif nga retenir moo la gën a marqué. Jeux olympiques Sydney. Sydney. Mhm. pourquoi cet événement. waaw parce que dem nañ fa nekk fa un mois. nekk fa ak suñu yeneen i nattangoo ay journalistes yoo xam ne yeneen pays la ñu nekk xam nga ñu découvrir fa pas mal de choses. xam nga découvrir aussi réew réew moo xamante ni nit ñi respect bi ñu joxante ci seen biir ñun ñun amul fii suñu réew waaw et puis aussi sur le plan sportif xam nga on naa découvert pas mal de choses mu nekk événement boo xam ne bu ma gën a marqué la. en tant que reporter sportif da ko teel a exercer vous faites partie des premières sinon l'une des premières. Hmm. jamono yooyu yan obstacle ngeen doon rencontrer sur le terrain euh, dans l'exercice de vos fonctions xanaa xanaa suñu mbokk ñu suñu journaliste yu góor yi bañ di ñu jox place <laughs> bañ di ñu jox place waaw mais comme man man dama man dama àndoon ak xadar mm-hmm. xam nga te man lu ma ni lii tey équipe nationale bi muy jógee bi muy jógee Mali bi muy jógee CAN ba maa doon seul journaliste boo xam ne dugg na ci bisu Lions yi waaw image yaa ngi fi man maa doon sël journaliste boo xam ne man maa nekkoon ci biir bisu Lions yi depuis aéroport may def direct ba bi ñu ñëwee ba Patte d'Oie école Mariam Niass je me suis rendu ñoom du ñu teel a egg palais ma décroché wàcc. Mm-hmm. macha allah. ñu ñëw ci Coupe d'Afrique dañuy gis ne journaliste sportive nga mais danga gën a fës ci football bi tey am benn polémique bu am ak Coupe d'Afrique bi organisé ou pas mais récemment démb gis nañ Matsepe ak Paul Biya ne nañ Coupe d'Afrique bi dina am. Mm-hmm. mais polémique boobu amoon xalaatoo ne l'Afrique est très faible. ah ñun de on a toujours été faible ñun. on toujours été faible euh, mais amoon nañ fi problème yoo xamante ni ñun ci bi ñuy nekk ci dëgg-dëgg ci biir ci biir ci biir métier bi reportage yeeg yooyu gisoon nañ fi ay jours pour ñu pour ñu pour ñu libérer leen c'était tout un problème wala ñuy simuler ay ay ay blessures seen club yi ni dañoo blessé et cetera yooyu yëpp dund nañ ko dund nañ ko tant que ñun jëluñu gëm suñu bopp ñun ñu gëm suñu bopp tant que defuñu ko duñu dem parce que coupe d'Afrique ñoom seen seen coupe d'Europe ñoom coupe d'Europe ñoom dañ dañ koy organiser amul feebar amul dara seen ligue des champions pourtant ñi ngi naan euh, omicron la xawma lan dafa taux bi dafa élevé te mais terewu leen seen ligue des champions ñi ngi ci ah il faut ñu gëm suñu bopp il faut ñu gëm suñu bopp waaw. bokk est-ce que bokk nga ci ñuy wax ni que coupe d'Afrique bi Sénégal da ko wax jël par la force. tant qu'analyste et en tant que euh, spécialiste yàgg ci milieu waaw mais xam nga xam nga Sénégal daf ko war a daf ko war a jël force loolu mooy aussi euh, xeeb ñi nga xamante ni ñoom ngay dajal Sénégal da koy jël force mooy xeep say adversaire te xeep say adversaire mooy indi ñàkk ñàkk jël boobu par la force gis nga gis nga gis nga Sénégal il faut ñu liggéey may mun a Sénégal il faut ñu liggéey bàyyi di jouer match bi avant coupe d'Afrique fi mu nekk nii jouer nañu match bi ba jël coupe bi indi toog te demaguñu mais c'est vrai. ah mais équipe bi ñu am on a les meilleurs joueurs actuellement en Europe nos meilleurs joueurs jouent dans les en en 2000 on n'avait pas les meilleurs mais mm, ce n'était pas comme tey ni mu mel. kon en 2000 ñoom El Hadji Diouf ay Lens ay Auxerre alors ñu ngi ay Liverpool Edouard Mendy mi ngi titulaire à Chelsea champion ma ne xam nga ban différence Kalidou Koulibaly mi ngi takk brassard à <laughs> Naples Gana mi ngi nekk titulaire indiscutable fële au PSG ma ne mi ngi takk brassard Naples ak mi ngi takk brassard Brésil ak yooyu yëpp en mille équipe bi ñu amoon deux 2000 xam nga ban différence la am ak équipe bi ñu am gis nga ñi nekkoon équipe bu 2000 dañoo amoon fulla am seen fayda xoolal ragaluñu kenn rusuñu kenn ba pare bëgg bëggoon li ñuy def un El Hadj bu duggoon ci terrain bi da ngay xam ni kii dafa bëgg a gagné tey. un ko booy yi kon nanga bëgg a wax ni que dañoo manqué sa. mais sa courage. non manqué wuñu courage xam nga lan lañ lan lañ lan xam nga lan moom manqué gëm xoola gëm seen bopp gëm ni ku taxaw ci seen kanam parce que différence bi différence bi ak 2000 loolu la woon de gëm ni ku taxaw ci seen kanam ñoom tey jii ñoom fii terrain bi ñoom ñoo ko moom victoire bi ñoom la mais yow bu fekkante ni yow boo mënee un 0 commencé bàyyee ko ah ba pare une équipe ce n'est pas pas un seul c'est 11 yaa ngi dégg dañ jàppalante équipe bu 2000 lu ñu ci mën a wax ci équipe bu 2000 man man dunduma ak équipe bii actuellement mais équipe bu 2000 la ma ca dund parce que dem naa ak ñoom Coupe d'Afrique Mali man dem naa Mali Coupe d'Afrique j'ai fait un mois avec les Ablaye Dabo les Jérôme et cetera mais gis nga ñoom ñoom mental bi ñu amoon mental bi ñu amoon équipe bi des na mental boobu moo des kese yaa ngi tiital sénégalais yi boo waxee loolu de. maa ngi. yaa ngi tiital sénégalais yi boo waxee sénégalais non may. tiitaluma tiitaluma leen et waa tiital leen sax tiital équipe bi moo gën. tiital équipe bi moo gën ñu gëm ni que depuis des années on court derrière et que ce n'est pas une question de euh, am nañu de bons joueurs on a de très bons joueurs donc lan moo ci des lan moo ci des. Ah, mais lan moo ci des football xam ne ay góor yàlla ñoom ay góor yàlla lañu ñoom ñu xam ne ay góor yàlla lañu affaire bi gis nga dangay dugg ni ma dee ci tey mais bu fekkantee d'abord yaa ngi dugg di xalaat ni bu ma fi gaañoo sama club bu ma ci kii c'est vrai seen gagne-pain la et tout mais bu la équipe nationale bu la réew mi taxee jóg danga ciy dem ba jeex différence bi ak équipe bu 2000 c'était ça que ça on avait des joueurs yoo xamante ni bu nu duggee ci terrain bi. da ngay xam ni ñii dañoo bëgg a joxe seen bakkan ba pare nag lu ci bëri danoon doon wu ci vestiaire yi waaw lu ci bëri dañuy joué wu ci vestiaire yi mbër yi gisoo bu ñuy def seen face to face yi commencé nappante affaire yooyu affaire ba ca vestiaire ya la lu bëri fa la daan xewe mais bu fekkante dangaa bëgg nekk nekk nekk tubaab chachichi chachacha jajajaja mais je suis désolée tooñu ma leen dama leen di tooñ nag mais voilà quoi c'est ça. d'accord foo ma wàdd wàdd est-ce que xalaatoo woon comme bu nekkoon fii comme ba tey tubaab yi dinañ xalaat jéem a jéem a proposer africain à ce que ñu repousser la CAN. que ma wàdd wàdd proposer ñu repousser CAN. foo ma wàdd wàdd bu fi nekkoon ak fierté africaine bi mu amoon ak. ni mu gëmee woon Afrique ni mu gëmee woon ndex bu ñuul. Hmm. est-ce que su fi nekkoon tey kon ba tey tubaab bi dinañu am sañ-sañu di proposer africain yi à ce qu'on repousse la CAN. Hmm. <laughs> mais euh, tubaab yi ce qu'ils font là ils toujours fait ma wàdd wàdd rek maa ngi maa ngi ñaanaat yàlla na suuf oyof ci kawam un grand dirigeant mais tubaab yi lu ñu bëgg a def dañ koy def. ñi nga xam ne ñoo fi nekk léegi di suñu ay dirigeants waa Afrique ñoo war a am seen seen fulla bopp loolu loolu moo taxoon mais mais président Wade bi mu fi nekkee gis nga ni mu daan doxale gis nga mu daan doxale ay eh, Macky Sall moom. déedéet non non dugguma foofu dugguma ci affaire politique. non damay demander rek waaw non c'est pour dire que ni tubaab yi. Mhm. li ñuy def nii yëpp. Mhm. dañuy jauger rek. Mhm. tubaab bi day jauger rek day xool ba xam ndax dina jàll wala du jàll. waaw waxuma waxuma waxu président Macky Sall wala kii dama kii nii rek moo ñëw président Wade moo ñëw sama sama xel ma ma ma kii. Euh, Khady Aïdara tey noo gisee jeune génération de journalistes bi fi nekk sinon surtout journalistes famille sportive. man daal li ma leen di wax moo di par expérience. Mm-hmm. parce que gis nga may loo fi gis nettali lay mujj. te nettali bu rafet moo gën ñu naan moom de moo fi doon def li wala moo fi doon def la gis nga lii ñu li liggéey bii ñu nekk kenn ku ci nekk que muy yow muy man wala keneen da nga dem jàngi ko du dëgg nga nekk ci liggéey donc liggéey bi bëgg buzz wala bëgg teel a am maanaam parce que léegi euh, appât yu gain dafa daf fi bari maanaam dangaa bëgg tey dugg ci métier bi tey siiw tey yore 4 x tey yore kër tey dugg ci avion yi tey am na nu muy demee sax nga am passeport diplomatique tey gis nga loolu ku ko def ci métier bi di nga ko def di nga ko réussir nii mais mujj ga mooy metti donc nga nekk ci loo xam ni quelque que soit génération bii ñëw yow di nga am sa notoriété di nga am sa notoriété parce que li am léegi ci li li li li am léegi il faut que ñun ñun ñun jigéen ñi ñu moytu bu baax ñu moytu bu baax parce que du parce que rek ay journaliste lañ jigéen lañu que ñu war a accepter dara pour mën a avancer dans la vie lii mooy tax nga avancé ñaq. d'accord Khady Aïdara. Hmm. Euh, mise à part journal sportif c'est une citoyenne jaaxal. Lonase temps yi ak Trésor ak La Poste am scandale yu bëri tey en tant que citoyen tey nooy noo gisee scandale financier yooyu di éclaboussé ci réew mi et tout cela socio-politique di vivre. ah waaw kenn ku nekk da ngaa bëgg a tedd tey ñun kenn ku ci nekk da ngaa bëgg a tedd tey xooloon yow liñ la jox da da as pour askan bi la ba pare nag euh, nit ki balaa nga koy teg fenn mais nañu xool. mais fii Sénégal da ngay jékki-jékki rek ñu ne ay dara nommé nañ la ay dara nommé nañ la. enquête de moralité mais enquête de moralité dafa war a am. enquête de moralité dafa war a am ba pare lese aller bi moo bari parce que ku lekk itamit man tey bu ma bu ma bu ma bu ma la lekkaloon 1000 francs bu soobee yàlla balaa ngoon procureur woo ma mais dafa mel ni milliard boo ko jëlee yow ci ngay ëpp sécurité te li ñuy lekk. askan bi ñoo ko moom te askan bi sonn nañu sonn boo xamante ni même yow buñ la audité wul waxuñu la dara defuñu enquête de moralité nga toog yow ci sa biro war ngaa xam ni àq bi ngay lekk tôt ou tard di nga ko génne il faut que ñu am beneen beneen façon citoyen il faut ñu am beneen façon citoyen il faut que ñu ñu ñu liggéey ku ci nekk lii sa ñax nga di ko lekk mais boo bëggee lekk sa ñaq lekk ñaq duudu faatu sàmba maanaam impôt yi impôt yi métti na TVA bi métti na ñu jël ko dajale ko jox ko benn benn benn benn benn structure benn waaye nekk fa yore ay 4 x di sàmba mbayat di def lu ko neex ñu xëy un beau jour ñu lekk na 4 milliards et après bu ko lekkee du dem fenn. scandale euh, situation bu tendu bi à RTS nag. Hmm. loo ci wax dé DG bi nekk à couteau tiré avec les syndicalistes <laughs> agent de la RTS. ah loolu syndicat bi ñoo war a xool lan lañu bëgg. Hmm. waaw syndicat bi. Hmm. ñoom ñoo war a dem xool lan lañ bëgg. ñu xool lan la ñuy am na loo xam ni su fekkantee day wéy ci ci kër. nga bëgg xëy un beau jour ni loolu dafay dañ dafay metti situation tendue je pense que ni temps yi saba va déggoo nañu direction général ak syndicat yi je crois déggoo nañu parce que lépp loo gis rek ci kaw waxtaan la war nañoo mën a toog mën a nekk ci benn saal wax ku ne wax li nga mën xam nga journaliste noo gisee paysage audiovisuel bi ak série télé ak série téléfilm yi di am. série ak série télévisée yi di am ak. souvent série yi day am ay scandale ak jigéen ñi fay nekk di def. waaw mooy li ma la wax rek xam nga loolu lu koy indi. scandale yi ngay gis maanaam ku ci nekk Sénégal léegi dañoo jël vulgarité ah vulgarité. def ko loo xamante ni moom mooy li war a am. est-ce que les médias aussi ne sont pas waaw mais coupables waaw médias yi waaw. médias yi parce que médias yi dañoo bëgg buzz. médias yi dañoo bëgg buzz. média bi ci boppam moom ñoo bëgg nit ñi daw dem di leen seetaani ñay def série yi bëgg bëgg ñoom buzz foog ni ñoom bu ñu defee lu vulgaire. ci la ñuy tedd tey ñan et dañuy viser ni ñuy def yëpp ñu ngi viser borom alal su ma vulgaire sama sama sama sama awre génn wala sama lii wala sama lee ñu woo ma dugg na fii génn fële loolu kese la du leneen daan nañ fi am ay théâtre yoo xamante ni dangay ree ba tas ñëpp mën ko seetaan mais y a des yoo xamante ni munoo ko seetaan lu dul yow doo pare nag. ñu def ko nag loo xamante ni maanaam da ngay jékki-jékki ñu ne la kii mooy meilleure série waxuñu ci dara lu dul maanaam waxuñu ci lu avancé loo sénégalais bi waaw mbirum non vulgaire rek nit ki nu mu ko mën a def ba vulgaire kese lañ ciy wane je suis désolée. bu démb doon tey ban nga ciy choisir. je reste amoo ci ay regret. non du tout. ah la fin de l' entretien Khady Aïdara li sa dernier mot. Ah, maa ngi maa ngi sant waa Sénégal maa ngi leen di sant parce que euh, lii lii dafa nekk lu lu rafet parce que ñun ñëpp ñoo bokk liggéey bi baax na ñuy nemmeekonte am na ñeneen ñoo xam ne xëy na Khady Aïdara moo ñëw ci seen xel mais am na ñeneen ñoo xam ni ñu ngi fi nekkoon ci biir journalisme di def liggéey bu am solo xam gisatuñ leen. te pourtant retraité wuñu feebaruñu gàddaayu ñu dégg naa sax ci Facebook ñun am na ku ma ko wax ni ma nit ñi dañu dangaa gàddaay dem Mauritanie xaw ma Gambie gàddaayu ma dew ma maa ngi fii ak sama boroom kër. waa ce que tant que ñi ngi dund am bakkan nekk diplôme journaliste bi ñu am amul loi bu ko génnee ni euh, nekkatuñ ko waaw mën naa génn tey mën naa beneen télé mun na ma soxla xëy na. bu la beneen télé woowoon tey. ma dem da ngay démissionner RTS. ma dem. RTS fonction publique la de. fii amul public ak privé. et mosoo recevoir ay proposition d'autres télévisions. mosuma ko chercher sax parce que man RTS laa màggee RTS laa màggee ba toll nii ma toll li ma am lépp. RTS laa ko amee mais da nga dégoûté par la RTS maintenant. Mm, non non <laughs> man daal maa ngi sant bu baax Sénégal xam nga sant ñi nga xamante ni aussi ñi ngi léeg dama leen di jot téléphone ñuy waxtaan xam nga di sant ñi nga xamante ni aussi bi ma ñàkkee sama yaay parce que ku proche la woon dama prochoon sama yaay bi ma ko ñàkkee ñu taxawuma ma ngi dégg. Euh, en premier sama boroom kër parce que sama yaay gaañoo presque ci lañu ñu sëy man ak moom moom di ma jàppale boobu ba léegi ndax ñàkk waajur dafa fort dégg nga booleeg problème yi ngay wax ci sama liggéey xam nga loolu soo amul ku la dul jàppale nekk sa wet dafay metti donc sama borom kër maa ngi koy sant bu baax sëñ Cheikh Mbacke xam nga euh, di sant itamit waajuram bu góor bu baax parce que itamit ku ma ku ma taxawu la parce que ñun dañoo nekk ñoo xamante dañ nekk ci liggéey bi am tuuti jikko tubaab maanaam ci li ñuy jàng xam nga mais bu fekkante am nga koo xam ni mi ngi lay tette gisul loolu jàppale la ngay mën di traverser des moments difficiles nekk ci désert bi mu metti mu ñëw ànd ak yow ci désert bi loolu tamit vraiment lu lu am lu am solo la di remercier aussi koo xam ni moom bëggul sax may tudd turam parce que bi may jàng moom moo ma fayal sama jàng waaw moom moo ma fayal sama jàng nekk yi nekk kilifa si biir réew mi xam nga muy Cheikh Adjibou Soumaré sama frère la waaw bi may jàng nekk France moom moo ma doon jàppale sama jàng bu baax xam nga ma bàyyile ko sama bopp waaw li may wax nii sax xam naa ni dana si mer ndax toujours di bul tudd sama tur waaw bi sama yaay gaañoo moom tamit mu taxaw ci taxaw baay bu rafet ñii daal laa am ñi nga xamante ni ñoo remercier di sans oublier Ablaye Diaw parce que su ma nekkee journaliste tey moom moo tax di dellu di leen remercier bu baax di di balu àq ñëpp nag di di tuub daal bu fekkante dama si wax loo xam ni rek lu lu safaan la rek xëy na xel mi moo moo toll noonu waaw. merci beaucoup jërëjëf May merci beaucoup.